bu defee kon daanaka ñu ngi jëm dem ci mbind yi nga xam ne ñoo euh, bu mat sëkk pour wax ak mbokki américain yi waaye ñu dëyee tàmbali moo tax ñoom daal yeer ma xanaa kay léegi ñu bàyyi xel ci lii nga xam ne moom la ñu sëriñ bi ba baaxee ñun la mot suñu wàllu ñu taal bi ndax tamit sa yëpp la daana wax ne jëriñ jëriñoo rek lay jëriñ te Cheikh Mouhamadou Mourtala yàlla na ko yàlla fayal bàyyi nañu kado bu rëy rëy rëy rëy te mooy cadeau wu éducation bu góorgóorlu bu baax nga xam ne nit ki bu la toppee yar la ba ngay gone yaral la say gone nga génn tumuraanke àddina tax nga voyagé dem bitim réew nangam milliers de kilomètres ak at yëpp yàlla joxoon macha allah mu topp océan yi fu nu fi nekk fekk na jël ñi nga xam ñu ëpp xam-xam te réew ma ak fu ñu mën a bokk nag indi leen ñu ñuy fàttali suñu diine ñu fàttali yàlla ñu fàttali sëriñ ba suñu xool tooy xeet hmm. mu soog a dellu te bu koy def trente personnes dañ leen paasal ñu ñëw bu ñu paree mu leen di yeew yi fekkee naa muy joxe ba fàtte doom boppam mu sëñ Ousmane Bakk sëriñ mi sëriñ bii taw tey fii daaw ci ci groupe na ci ñoom ci passé leen ñu bëgg ñun bu ñëwee itam ñu kontaan fàttali yàlla fàttali sëriñ bi fàttali la ñuy sore ndax di kenn sax kon yàlla yàlla fu mu gudd ak wér jàmm waaye yàlla yàlla may ngërëmul waa kër Sëriñ Tuubaa yi am na lu ñu junj wax ne ñun ñëpp ñoo ci war a bàyyi xel Cheikh Sidi Mokhtar daf koy doyloo naa la doy nga ma ci biti te moo fi Sëriñ Tuubaa mu jëlee responsabilité bi ñu wax ne damaa leen bëgg di orienté ngir ngeen xàmmee naka la te su ko neexoon mu maam ñooñu ñu sëriñ bi nuyu na leen dégg nañ seen wax ñu dégg mu ñaanal ñu dellu mais day dépensé xaalisu dépensé temps keroog bi ñu jógee ni yoon cent quinze degré la bi ñu egsee fii soixante dix la différence de climat yooyu rek ci kilifa métti la boole ko joxe alalam ñoom lay tuwal mbàtte ngir jëm yàlla sëñ bi ci li muy jiitu saar bii yëgu woon yaay su ko defee nan góorgóorlu baax a baax kër yi sëñ Tuubaa yi danaan jëlee cinquante cinq mille dollars ca réew ma nga déglu ko fii pour ñu mott suñuy achat kon war nañoo def fulla ci def lii kër Sëriñ Tuubaa yi benn te bu nu man ko nekk benn rek ko te ko ci plan bu wóor moom day wax na ne saa yi ne ko sumbee dinañ leen jàppale jàppale bu wér su ko defee ñoom kër Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp ku nekk boo xoolee ñu la wër fii ñi fi am ay 15 ans jëm suuf bëriwul te loolu war a nekk incha allahu te biir nga mën a continuer léegi loo xam ne taxaw kenn ci mu tuwaay ba muy sixième ba terminal mu doon université wu sept milliards dégg te mosul ne gouvernement sama loxo ngi nii lépp da koo teg ci rek wàccu ci yàlla ak ndimbalam ci bàkki sëñ Tuubaa su ko defee ñu tamit nag ñu mën góorgóorlu suñu kéem kàttan xëy na mënuloo mel ni ñoom loolu yàlla mënuloo mel ni ñoom moo tax ñu yaakaar leen nag waaye yaakaar nga war ñu jëf nag suñu kéem kàttan nan fexe ñu ba def kër sëñ Tuubaa ba bu ñëwatee daal ci këram ñu koy wan ne ko mérite woonu li nga defal waaye nag ñoom ñu nax na ko jéem rek. dañ maam sa am doon seen tubaab mbàkke xam nañ mënu lay taal bi waaye noo fi nekk. ginnaaw <laughs> noo fi nekk nag nañ góorgóorlu suñ musulaa ne woon def leen kër yàlla yoo xam ne yii da ngeen fay defal lislaam liñ koy defal di fa jàng alxuraan yi di ko fa jàngale nee na di fa defee salaatu ala nabi mu ne xasaay sëñ tubaab doy na ci kon loolu xañul hôtel jàmm mm-hmm. xañul saal jàmm suñu yëf bopp rek mu lay fekk am na beneen phénomène bu am boo xam ne war nañoo doole soñ ñun ñëpp ndax moom kat appel bi mu lancé euh, Serigne Touba daf ne woon ñi ne ci jéeri jën ak ñi ci géej gi laa woon ñëpp ñu dem ñu ñëw wuy si salaa sala bi nga xam ne bi mooy géeju tex mhm. du noonu man maa toog ci Atlanta benn américain ñëw noir américain mhm. soo ko junjee téere bu ma doon sëriñ bi mhm. dara ne xam naa ba noppi téere ba ko jur tey ci misaal te boo ne boo mooy bul xudus mu ne la am naa ko am dem Touba daal ca kër jarbaatu sëñ bi muy sëñ Basiru Lo génne cinquante mille francs dem ci jumaa ji yore ko ubbi wëlisam luy tere xam-xam lu maa doon lijjanti na ko si wëlisam ñëw ma nga yore daaram ci amandaar nga xam ne bi mu ñëwee seet si ma euh, benn tànn la doon daw boo bi mu ñëwee eh, ne ma damaa dégg daal sama benn mbokk almande dégg naa ne fi la nekk bu baax fi la nekk ñu wax Fatima mu ne ma damaa koy jàng ma ne ko foo dëkk mu ne ma léegi ma ne ko li bi nga dëkk mu ne ma waaw ma waaw ndax léegi ak libyen bi ñu daa bëgg jàng arab bëgg jàng xam-xam mu ne ma man fii laa juddoo dégguma arab li may làkk du arab dégg dinaa làkk sama yaay suñu làkk naa def waaye dégguma arab mais mu ne également parce que fii laa jàngee mosuma génn téere bi ñuy commencé jox waaye ñu ñëw dabasu ko fa ñaan ma téere yi may jàngalee ñaan ma software bi may jàngalee ñaan ma sama PowerPoint ma jox ko lépp ndax xam naa ne sëriñ Tuubaa lay yaatalal ginnaaw bi ñu xamal sëriñ bii lañ dégg am seen fu lañ toll yi jàng arab dégg ko jàng téere si dégg ko di def dañuy def ñu tamit waaye dëkk waaye dañoom jëm ba boo léegi ñoom ñu man ki ci topp mooy almaan boo xam ne bii dafa di di xool fi muy jaar yëf yi neex mu daal di gis numéro bi ka daal leen di woo sëñ Basiru loo jël mu ne ko ndax am ngeen carte jooje sëñ Basiru loo daa ngay xaaral ma numéro asal mu daal may woo euh, ko ma jox adresse daara bi mu ñëwee ma ne ko dëkk lu mu jàmbale ma ko lu la lu la lu la woon sëriñ bi ma sama bi mu gaañoo laay wër lu mu mën a ma xam ne lislaam rek moom laa moom moo nee na waaye may gëstu ba gis mbirum Serigne Touba ci ma jaar ma gis ne kii moo gën a powerful lu muy def dafa simple lu mu koy jàngale ni muy xool xool li bari bari doole moom dafa neex a jàng mu ne ma masaali maa ko jàng ci benn journée benn bis la jënd masaali en anglais jàng ko mu jeex tàkk léegi ñunu neen la ñaata ñun ñëw lire masaali te am na ci français am na ci arabe am na ci anglais ku ci nekk am dëkk ci langue yu benn te moo tax ne ba la xam ku ci am benn ma ne ko sa ah, alxuraan bi mën na maa tere jaasi ba naas ma ne ko ok kon léegi naa taamu xam-xam la ba pare mu taamu lu mu tës a saxaar bi muy ñibbi Allemagne war nga dem Allemagne euh, le premier pour pour euh, woor yi mu daal dem ci bi daal di dugal turam daa or ne leen Allemagne la maa ngi ñëw Allemagne bu may ko sama mbokki murid waa kër maamam ñu nga Bremen waa kër bàyyi bi nekk ci is bi booru Cologne daayira bi sëriñ ba def nga xam ne Cheikh Mamadou Moutala moo yónnee xaalis ba ko jënd yooyu ñoo ko email ne ko ñëwal ñu ñëw sa bokk mu ñoo ñoo lay dalal te xaalis wax lu bu kër bu ay ñi ci côté is bi waa kër bàyyi beneen ay doomu nga fa ñoom ne ko boo boo jógee Bremen ñëwal fii ñu tamit gane si mu ne man amatuma problème wéy maa ngi dégg sama bopp mu ne ma demee maa ngi fekk sama bopp mu ne ginnaaw nag ñoo xam ne fu la ji toll nii la sëñ maam maam waxoon ñu bële dañu yëpp kenn moomu ko mhm. bu yeboo ñu yeewu ne kenn moomu ko mhm. te di sàggal ba suñu doom yi ay allemand ak i ñeneen di leen jàngal mhm. te ñu ci wax dëgg yàlla ñu judd ci sëriñ bi dañu baax di làkk li ñuy làkk loolu sëñ bi gars yi ëpp na waxuma ko pour yéen o déedéet dama ko wax ngir ñu bokk sant yàlla te sant ko ci li may jeexale mooy ñu fàttali li sëñ Moussa waxoon dafa ne woon ci xutbaam yi ñun ñu mujj defal ne àddina li ñu fi am mooy li ñu sol mu raab wala ñu lekk ko mu rees wala ñu doon suñu bàmmeel yàlla yeex ka ànd ak jàmm su ko defee nag ñoom fu la tourné rek góorgóorlu suñu kéem kàttan rek waaye fii ak diir bu gàtt dañ góorgóorlu am suñu kër sëñ Touba di fa def li ñëpp defal sëriñ bi te mooy di jàng li mënuñ jàngal di ko bu ëllëgee ñii ñu may saa yi ñu fekkatee bañ bañ toog daal di ñii ñoo mat a yaatal nañ leen dolli ay taal ak dolli leen welcome yàlla na ci am dimbali ci barke Sëriñ Tuubaa ci barke Sëriñ bii nu àndal te liy yàgg loolu jar sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa wa barakaatu